mbokk auditeurs rajo Oxygène ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam ñu dellu si waat fii ak yéen euh, ànd ak yéen euh, ci seen émission diisoo ngir aaru tey nag ñu am ak yéen ci émission fukkeel ak juróom-ñaar yem ak altine fukki fan ak ñeent ci weerum février atum 2022 ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di fàttali rek ne diisoo ngir aaru euh, di projet bi nga xamante ne rek Africa Check def ci ànd ak Théâtre for Change waaye itam lépp ci jàppandalu Google News News Initiative di fàttali rek ne fii lay amee altine bu jot ci rajo Oxygène 103.4 ngeen mën koo am ci bu juróom-benn waxtu ci ngoon jotee jàpp juróom-ñaari waxtu ngeen mun ko suivre itam euh, ci euh, Zeno di fàttali rek ne mbokk te rajo Oxygène ne te mu tey bi nekk Covid ak respiration maanaam wàllu noy yi di fàttali rek ne tey ji am nañu invité comme niñ koy defee rek saa su nekk invité tey bi nag di uyo ci turu Abdou euh, Touré xam naa ne nees tuuti rek ñu jokkoo ak moom ñu ngi jéem a fexe ba mu mun a dugg ak ñun di fàttali rek ne Abdou Touré consultant humanitaire la World Organisation Scout Movement nekk citoyen euh, sénégalais di yëngatu lool lool nag nekk un acteur engagé euh, ci wàllu communauté am euh, Abdou Touré maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum. maa ngi lay fay ñu lay dalal ak jàmm sur les zone de la radio Oxygène. merci beaucoup merci si invitation bi. dinañ teewlu bu baax a baax ndax xam nañ ne rek euh, liñ lay déglu euh, lu am solo rek lañ ciy jëlee ñu lay dox kon daje ci kanam tuuti ñu gën a mën a jokkoo ak yow di fàttali rek ne auditeurs yi nga xam ne bëgg nañu dugg ci émission bi benn yoon rek la ñuy jaar maanaam envoyé message ci numéro whatsapp bi di 77 424 94 73 bu ko defee rek ndaw Africa Tekki daal di leen woo ñu daal di participer ci émission bi doon dañuy envoyé message su ko defee bu ñu ko gisee ñu mun leen o ñu daal di participer ci bile émission ci fàttali nag li ñuy waxtaanee mooy histoire Modou Modou nag tey ci fukkeeli euh, émission bi ak juróom-ñaar rek dinañu dellusiwaat bu baax a baax ci moom di fàttali nag Modou mi ngi wëy di ñàkk gëm li nga xamante ne moo di mbaas mi bañ ñakku ñàkku waaye itam di fexe ba daal di ci dindi képp koo xamante ne rek am na ci euh, yaakaar. di fàttali émission bi nga xam ne théâtre radiophonique la li ko tax a jóg moo di déconstruire lépp lu jëm ci xibaar bu warul jëm ci mbas mi te ñu koy gis ba feebar bi duggee ci réew mi ba léegi kon rek dañuy daal di dem comme niñ koy defee suivre ak yéen épisode set bu diisoo ngir aaru di wax ci Covid ak respiration. sama xaalisu ndékki damay dem jàngi. jàngi Binta tey ngaa toog yow yaa ngi ba tane ko bu baax sa bëgg a dem école tey ngaa toog ba tane bu baax ngay doo ko dem. yaay bàyyi rek ma dem dama am devoir te semaine bii di ñëw dañoo war a def composition donc bàyyi rek ma dem balaa may tardé yeneen cours yi. yee bàyyi ko rek mu dem jàngi kii dafa mel ne tane na bàyyi ko rek ñu ànd dem. ah waa baax na surveiller ko bu baax rek de dégg nga ko bu baax. sama xaalis. Binta gaawantu dinañ taax dede nañ gaawantu waaye man Binta xam nga bëggoon naa ñu waxtaan xam nga yow sama raq nga dañoo xuloo xuloo yépp mais dama laa bëgg yow xam nga lool n'est-ce pas dama bëgg yow tamit Binta nga delloo ci sa xel keroog gis nga ba nga jëlee ndoxu géej bi dugal ko ci sa bakkan bi noonu laa tiite woon damaa ne woon waa est-ce que man Binta dina jóge ci lii yow Binta tamit lu nekk dañ la koy wax ci coronavirus nga bëgg ko gëm xale nga day wut ay information mais yow dañ lay wax rek nga gëm ko loolu baaxul xanaa xamoon ne coronavirus bi depuis mu ñëw chaque jour ñu wax ñu lu bees léegi nag yow lu ñu la wax nga dem ko léegi boo defoon loolu nag après mu indil la complication lan ngay wax. soxna d'accord naa li nga wax de mais aussi des fois sam day indi information yi nga xam ne tamit day xaw a normal en plus sam mënul wax man ma koy dindi ay waxam toujours. Binta sama papa ak sama yaay. chaque jour ak ay information yu bees yu ñuy wax te yooyu boo xoolee ba ci biir yam na ma yàlla baal mais li ñuy wax loolu amul parce que dañoo nekk rek ñu leen di wax ay ay rumeur ay yoo xam ne amul yow tamit nga bëgg leen topp waaye garaawul suñu wàccee nañ continuer suñu waxtaan nañ dem parce que heure bi léegi mu jot ay man ay sama ngàcc ne moom mi ne xaw fan laa koy waaye man naa ku ne xam na ne keroog bañ fiy nàkk mère Fanta naan mu mu ñëw suñu tour bi ñëpp teg nañ si seen bët comme loolu amul xaaral ma woo ko wax ko ne ko comme maa ñaay corona woon mën naa ñëw ci tour bi waaye ne téléphone bi moom lay amoo xanaa tee ci téléphone bi nii minute mënumaa wax waaye nag damaa mu ñu naka ma fin ne nga léegi mën ngaa ñëw ci tuur bi nga ak ñun ku ne xam na ne ñun ay doomu lañ lañu te yàgg nañu waaye nag moom dafa maa xam nga ne Fanta moom maaxaayam foo ko naxaay weesu na ko mam nga ko waxee ni mu ne ma garaawul yéen samay doomu nag su subaa dinaa ñëw mi tuur yow tamit soxla Marème da nga war a bàyyi boo déggee dara rek daal di gaawantu lii yëpp nag yaa ko andil sa bopp. Eh, dama na mu na nara am na nga bëgg ma kaa keroog mañ koy naan ñun ñaar ñii ñoo ci waxoon man ña nañ fa naan. waaye dama ni amatul solo comme que Fanta nee na dina ñëw kay baax na te Fanta moom ku baax la. salaamaaleykum ah sama xarit yi namoon eh, naa leen nag. namoon naa leen bu baax nag. suñu doomu na ngi nii. Eh. ah Fanta nag teg ci loxo ah, ah déedéet nag bu leen def noonu nag. bu leen fàtte ne yéen tamit nag lii moo jaaral suñu diggante ay affaire yu joxe loxo nii te coronavirus bi loolu da koy bañ te yéen bu leen fàtte ne yéen ne ma fi waxoon ne Baye Ndiaye dafa amoon coronavirus. ah eh, na non non Fanta loolu yow tamit. soxna Fanta xam nga loolu bañ koy wax ñàkkoon na am information yu leer te yéen nag da ngay fàtte loolu daal jàll na nañ wax ci waxu tuur bi. ma ne dinañ wax ci waxu tuur bi waaye wax ci waxu coronavirus gii arrêté leen joxe loxo yi mooy dëgg. ben Efendim nag ak ñanul ay fàttaliku ay fàttaliku moom dafa baaxul nag. ay doomu dañ lay. ah waaw waaw kon bu ana dëxin bi ah dama naa dëxin bi nag. tey eh, moom dëxin amul tey moom nañu nas nañ dem. waaye may leen ma man de dafa mel ni message laa jot nii sama jarbaatu jëkkër bi moo ma envoyé message bi. waa lii ma message lan la. respiration coronavirus message bi lu mu wax mooy. boo bëggee tester ndax am nga coronavirus walla amoo ko da ngay téye sa yi ci 23 secondes boo sëkkatul ti sooliwoo kon amoo coronavirus. <laughs> yow loolu nga indiwaat man de damaa sonn gis nga mu nekkee mii nii mu mees mii ñu indi moom nañ ma si génne ndax man mii xam ne asthmatique laa xanaa dun man maa kii nag sama nooy 23 secondes. <laughs> man de bii moom su ma ko yóbboo kër ga xale yi dinañ kontaan ndax bii dafa yomb sax. dama ne la soxna Fanta nañu ne loo si suñu xel information yi ñu doon indi moo tasoon suñu ànd mi ñu ñëwaat nag indi waat fii mu mees te ñu xaane mu xoolaan mu maax malaa ñu koy ngam. Eh, bii moom nañ ko dem def teste ko bii kat moom yomb na te neex na nañ ko teste rek kañ. soxna Marème gis nga sama jërbaatu jëkkër bii moom daal du waxantu. ba tax na bu ma envoyé message dama koy daal di gëm xam ni ma mosul dugg ci ay caaxaan kon kay lii da koo fii ba am ci lu ko leer man de bu ma demee kër ga dinaa ko fas yéenee testeeg njaboot gi man mii de dinaa ko testeeg njaboot gi ba mu wér képp ku ci war a jot bu sooba yàlla ñu jotale ko ci ndax xibaar dafa war a war ba ñépp yëg ko nag man na tesew ma tay tesew ma suma ndax xam nga lan laa mën nañ leen natt nem ñimmi ndax moo ngi ngu soxna Fanta baax na léegi indi sa natt ma bind ñu daal di daw. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. nijaay. waaw. gars ana xale yi. waaw la xewa waay. yéen daal tey lu neex li ma andi ba ma dalee andi ba tey mosuma andi lu neexee nii. ah yee xanaa nag danga ñuy jox cadeau ñun gën nañoo am cadeau de. ma ne li ma leen di jox moo dax cadeau. lan la. maanaam respiration lañ ko wax xawma ma. boo ko defee mën nga xam ndax am nga coronavirus wala amoo coronavirus. oui yaay fan nga fan la tey. ma ne. rang leen ma wan leen rang leen. Fanta aw daal ab docteur. rang leen rek ma wan leen rang leen ma wan leen. rang leen déedéet rangal rek yow ñëwal rangal rangal. xam nga ngay def da ngay fat sa bakket bi boo ko fattee ñaata seconde sax lañ ma waxati woon 20 secondes ah wala 25. defal 23 secondes rek defal 23 secondes na jël. yee man sama dënn baaxul ma mënu ma def. na jël rek na jël rek ma xool na jël rek. ma yee man ñëwal ma ñëwal dama feebar. na jël na jël na jël. calculé ah. nijaay calculé ma nijaay calculé ma. <laughs> nijaay ñëw. man sax yow mi foog ñu seetaat seen bi. yaay <laughs> acca. najal nijaay najal. najal rek. najal. ii nijaay yow moom loolu loolu. Eh, ñëw najal. man najal. waaw aw li kala ka digal man defu ma de man defu ma yii tëj ma sama nooy ay ay dix secondes ay trente secondes. yow lan mooy loolu. yaa man defu ma. da ngaa war a def nag comme say morom. yaay lan moo xew ci kër gi papa lan la. man daal Modou. waaw tuur laa demoon. sa tante Awa Cissé jot benn message. ñu ne boo bëggee xam ndax euh, am nga coronavirus wala amoo ko. da ngay nekk sa bakkan maanaam 23 secondes bu ko defee boo sëqatee rek mën nañoo xool jiwaat say boo sëqatul nag moom mucc nga ci coronavirus bi moom laa doon def loo xale yi nii ñëwal def ñëwal def Modou. yaay eh, yaay yaay yaay bon ban def lan laay def. na sa bakkan bi moo waaw yaay dara yow yaay mënoo leen bàyyi wax ay coronavirus. bàyyi waxu coronavirus yaay bàyyi leen waxu coronavirus may wax nga ay naj bakkan ak yooyu noonu boo fa najee bakkan ba fàtt fi na teel respiration la Modou najal sa bakkan bi yaay baal ba mën koo wax respiration lañ la wax nga naan inspiration yaay xam nga lan la bu leen doxloo seen bopp ndax ay coronavirus coronavirus bu dee am na sax mi ngi dox yoonam bàyyi leen ko mu dox yoonam ngeen dox seen yoon ngeen di nekk fi di defloo nit ñi ay affaires yoo xamante benn njëriñ kër kenn mënu fee am jàmm da nga ma bëgg a def ba lu ma rek nga teggi ko teg ko fële Modou lu ma wax rek nga teggi ko teg ko fee man du ma wax lu leen di lor ndax man maay seen ndey maa leen jur lu ma fi andi rek lu seen wër gi yaram lay doon waaye nekk lu leen di gaañ yow Modou man du ma sa morom yëpp nga man nag tegoo ma fenn. yaay du affaire du ay yabaate yow yaay boobu ba léegi yaa ngi ñëw fii di indi ay affaire te saa yoo indee boo demee dañ naan la loolu ngay wax amul doo ko bàyyi nga noppalu noppal sa bopp bañ a gëm corona sax benn yoon sax nga jàpp sa njàmb ah mais yow boobu ba man xaaral sax ma dellu man fa ma nekkoon dem naa ne sama ataaya toog ak sama gaay mais fii nii kon na leen kon na may ma jàng may ma jàng kenn mënul am jàmm ci kër gi nekk ñuy ñëw di wax ay yoo xamante ne amul bopp amul geen waaw booy yaa ngi wax rek lan la. waaye Pape sama gaala xam rek tax na mënatuma am jàmm sama biir kër tey la sama yaay ñëwati indeeti information. ban information. sama yaay tey xam nga lan la fa indeet nee na bu fekkee danga nga bëgg a test ndax am nga Covid wala amoo ko da ngay naj sa nooyi lu tolloog si ñaar fukki seconde ak ñett maanaam vingt trois secondes. boo tissooliwul sëqatoo mu ne amoo Covid. booy fausse information yi ngi am noonu baaxul wóorul gis nga OMS sax wax na tee sa noy lu ëpp fukki seconde ak ñett sax taxul nga xam ndax am nga Covid wala amoo ko te sax loolu wóorul si sa wér yaram gis nga boo bëggee xam si sa wér-gu-yaram dara demal seeti kër docteur man de loolu laa lay xamal. man xoolal fi mu toll nii ay waxu Covid ak yooyu noonu sax si boppam laa bëggatul sax ñu ma koy wax man gannaaw xamal ma bëgg instant ni dem toog sama gars yi naan sama caayin ay waxu mooy loolu quoi man day met sama bopp instant nii. Ah li ma si xam naa la. de façon daal grand xam nga li am ba des mooy lan mooy Covid 19 existé wul te jaruñ sax ñu koy gëm nag yow nag moom xam naa ne temps yaa ngi si sensibilisation yaa sax copine xaw ma biige xaw ma. merci parce que boo xoolee tey jii man ak moom ñu lëkkaloo di sensibiliser. c'est parce que dëkk bi moo yàqu. ndax léegi kenn gëmatul kenn mais nag il faut ñu leen di sensibiliser ñu xam lan moo xew ndax léegi nit ñi dañu am ay fausse information yoo xam ne du ñu xam fan lañ ko jëlee boo waxee ñun laan Facebook wala Twitter wala Instagram wala leneen ak leneen te yooyu noonu baaxul. en tout cas daal demal jox ko ñu koy soxla waaye man ba man bàyyi ma la nga dem man instant moom affaire Covid moom ku ma koy wax instant du ma la soxla déglu demal demal demal grand. ah mais ok baax na. waaw jaajëfal bu baax a baax ko ci mel ni Cheikh Ndiaye Khady Fall Diaw waaye naka noonu ki nga xamante ne moo di Mamadou Diol Mame gay seyna bu Diop ak Yacine Diop kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax comédiens yi nga xamante ne ñooñu joué épisode 17 bi di jaajëfal ki nga xamante ne moo di DJ Las ci turam dëgg nag nekk Emmanuel Mendy nga xam ne moo ñu jàppale ci mise en onde radiophonique bi ci théâtre bi nga xamante ne dafay déconstruire les fausses informations euh, bu Covid 19 ak i ay vaccin yam tey am altine bu jot ci juróom-benn waxtu jàpp juróom-ñaari waxtu mu di fàttali nag question de la semaine bi mooy ana lan ngeen di wax ñi nga xamante ne jàpp nañ ne naj seen noy yi mën naa tax ba ñu xam ndax Covid bi dal na leen wala déet invité euh, bi mu ngi en ligne comme ni leen ko waxee woon sànq mu nekk Abdou Touré nekk consultant humanitaire World Vision Organisation Scout mouvement bu fekkee ne ñëw rek dinañ dokkoo ak moom directement mais on fait signe technique auditeur bu njëkk bi mi ngi nekk ci ligne bi ndax mën nañ xam fan lay wootee ak naka la tudd asalaamaaleykum. maa ngi lay nuyu bu baax sëriñ bi. maa ngi lay fay soxna si. ndax mën nga wàññi tuuti rajo bi ndax dégg-dégg bi gën a mën a leer. tur bi naka la ak fan ngay wootee. waaw man maa ngi tudd Cheikh Moussa Fatma Ndiaye. Cheikh Massey Fatma Ndiaye kii de auditeur u diisoo ngir aar la ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax. kon mu mel ni hashtag bi rek la ñuy fàttali mooy bu fekkee ne yaa ngi suivre ba bëgg jokkoo ak euh, comédiens yi da ngay daal di wax li nga xamante ne mooy fi nga xam ne fa nga bëgg duggee su ko defee nag bu ñu lay joué laatee pièce bi ndax ci fàttali nag euh, comédiens yaa ngi nii nekk ak man ci biir studio bi boo leen waxee stop rek ñu daal di joué fi nga xam ne fa nga bëgg a duggee en tout cas boo nee stop rek ñu daal taxaw nga mun a jokkoo ak ki nga xam ne moom nga bëgg a waxal directement daal di ko sensibiliser ndax loolu mën naa nekk. waaw mën naa nekk. kon fan mu nga bëgg a duggee ci biir pièce bi. waaw d'abord jaajëfal leen sant leen gërëm leen bu baax wax dëgg fa yàlla bëggati nañu ndax dégluwaat nañu tey tamit amaat ci yaakaar ni que ni askan wi daal dinañ ci jëriñu lu bëree bëri incha allah. waaw man nag euh, toujours rek Kër Baye Ndiaye daal man mooy sama problème. la waaw waaw <laughs> parce que kër googu moom boo leen bàyyi rek ñoom ay fausse information dong la ñuy génnee donc dama bëggoon fii maire bi indi information bi dajale njaboot gi yëpp may intervenir foofu. kan nga ci bëgg a waxal directement. waaw maire bi si boppam laa bëgg waxal ak paa bi. loolu dina ma neex. kon ndax mën nañu dem. d'accord. bismillah. salaamaaleykum. waaw. nijaay. ah wala xew waay. xale yi. ña ngi. ñëw ñëpp Binta. ñëw leen Modou. naam yaay ñëw leen. waaw laa la woote rek. tey daal. nouvelle bu neex laa leen andil. ay yaay xanaa tey danga ñoo jëndal cadeau. cadeau yéen li ma leen andil moo dàq cadeau. ca tuur ba laa jóge seen tante Awa Cissé daal. la benn doomu magam. envoyé ko benn benn message ci seen affaire yooyu noonu xaw ma euh, stop la xaw ma stati la xaw ma nu ma tuddati léegi nag ndekete boo najee sa nooy yi da lay mën a da lay mën a wax ndax yow am nga Covid wala amee amoo Covid. kaa leen rek leen Soxna Fanta. rek leen yooyu man man kii wu ma de man man. kon mu mel nii nee na stop. comédien yaa ngi noonu mère Fanta ngi nii Baye a ngi nii acca ñu dem. mère Fanta. naam. dégg naa bu baax li nga wax. waaye damaa bëggoon rek ngeen déglu ma tuuti. yow ak Baye Ndiaye ak sa njaboot kii ah ayca yow la ñuy déglu. mère Fanta xanaa nekkul ne sa doom ji jigéen ji moom dafa asma. ah waaw loolu dëgg la mooy nag damaa bëgg nag asma boobu mu asma noonu mu muccal ko ci Covid bi. kii de boo fattee nooyeem waxuma la vingt trois secondes cinq secondes léegi mu faatu. man maa la wax léegi. yow looy wax ni waaw yow de xëyoo ma ah, xaaral rek maire gis nga ko asma waroo ko digal muy fatt ay bakkanak ay nooyi ay saxaarak ay poussière ak yu demee noonu te beneen bi mooy dégg naa nga ni sànq ku fatt sa bakkan vingt trois après boo sëqatee ñu xool say affaire ak dix secondes sax boo arrêté sa nooy boo nooy waatee da ngay. waaw daxalab docteur aw. yow Cheikh Massey. ah do xam nga sa tante Awa Cissé xam nga ko. xam naa ko bu baax. waaw léegi nag moom la doomu magam. envoyé ci seen TikTok loolu xaw ma TikTok xaw ma WhatsApp. waaw benn vidéo. kooku tëdd ci alalu hôpital bi mu aj nooyeem. léegi nag maire bi seen problème bi yëpp foofu la nekk. gis nga ah. xibaar yi ëpp yi ñuy jëlee ci wàllum coronavirus ci internet bi. te fekk médecin waxu ko ku yëkkatu yëngatu ci kër docteur waxu ko bu dee fukk la juróom-ñeent yëpp a wéerul man maa la wax li li gën a wër ba wóor mooy que ni su fekkee bëgg nga xam ndax am nga covid wala amuloo ko pour man li gën a yomb gën a simple mooy nga dem nga defe ci test PCR yi moo gën a gaaw ah ah Cheikh Massey li nga wax yëpp dëgg la bañaluma la ko waaye bu beneen yoonee man tamit bala maa andi information sama biir kër ah dinaa ko seggaat jërëjëf yaay booy loolu mooy li gën jërëjëf. waaw ah, sunu yaay ak sunu papa yi ngeen yàgg ci jërëjëf oh. li wax nii. waaw <laughs> ah. ma ko de. aywa jërëjëf. tiki <laughs> jërëjëf jërëjëf Cheikh ndax li nga xam ne moo tax nga woote ba ko ak euh, maire fant ak nga xamante ne moo di Baye Ndiaye ndax def nga ko. waaw def naa ko parce que surtout doomam bi am asma bi kooku laa gënoon bëgg ñu protéger ko ñu ko sax essayer loolu moom essayer ko sax wóorul. kon daal jàpp nga ne kon di naaj sa noyyi ngir mën a xam ndax am nga Covid wala déet nekkul lu yeenu maanaa ah jàpp naa <laughs> kon kon nag jàpp nañ ne ndaw nga koo xam ne mën nga véhiculer boobu message. ngir mën ko déconstruire ndax nekk lañu nit ñi xaw a yaakaar ñi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf la jox dig daje kon beneen bés uh, ci beneen ponk. ñu koy jaajëfee bu baax a baax kon ma ko ak nga xamante ne moo di invité bi ndax mi ngi ci uh, ligne bi uh, Abdou Touré maa ngi lay nuyuwaat. Euh, soxna Codé maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bu baax nga nekk consultant humanitaire World Organisation Scout Movement nekk citoyen sénégalais te nekk ko engagé lool ci luy doxal askan wi rawatina ci question jeunesse ak environnementale mu mel ni kon yaa ngi doon suivre émission bi nga xamante ne mooy épisode 17 di wax ci respiration ak li nga xamante ne moo di Covid ana lan nga jàngee ci sketch bi nga xamante ne suivre nga ko ak ñun. dégg naa intervention yi di rafetlu un euh, style bi ngeen jël c'est très éducatif euh, c'est quelque chose boo xam ne bii tey euh, am na ñu bari ñoo xam ne bu ko déggee dañ mën a jël ay matu matuwaay ci seen comportement ak Covid beeg yooyu xam nga feebar la boo xam ne bi ñu ko xamee di yàggul donc c'est normal moom ay préjugés yu bari yu ci am nit ñi di jéem a jëfandikoo façon bu nekk. mais mm. comme ni ko seen auditeur bu mujj bi waxee dafay baax ñuy déglu. waa kër docteur bu yenn yu mel ni amee parce que ñoom ñoo ko jàng ñoom ñoo ko xam ñoom ñu gi def analyse si war euh, pour gindi population bi aider ñu te boo xoolee depuis bi Covid bi duggee ba tey gis nañ euh, pourcentage bi nu muy wàccee ni ñuy encadrer maladie euh, mooy wane ne am nañ xam-xam bi donc nag wàllu at nooy bi bi mu ko déggee ay ree la fa def mm-hmm. maa ngi yu métti <laughs> lu moo tax mu def la ay ree non en fait dama xam ne rek nit ak nu mu soxlaa euh, oxygène nu mu soxlaa nooyi même bu dul sax ku feebar nit ku ku xam ne dara euh, dalu la boo fotee sa baqen rek da ngay da ngay sonn. tout koo xam ne da feebar. comme euh, Covid bi ñëpp xam nañ ne dafa nekk feebar bu xaw a doy waar buy jàpp sa sa cër yi nga xam ne tey sa xëtër bi sa dënn bi sa noyyikaay yi bu dee dafa la dal moom nga ne da aj say nooy yi dootoo am oxygène bu doy te damay ragal ne foofu moom. Euh, yow da nga mel da ngay mel ne kuy accélérer sa dem. tout à yàlla na yéex waaye <laughs> bi ma bi ma dégloo mbir mi. dama ne waaw waa ji moom <laughs> doy na waar de xanaa affaire ku la dégg xam ne bu reeloo itam nekkul lu am njëriñ ndax bloqué respiration mën naa indi loraange ci nit ki nga xamante ne moo koy def. say ak secouriste di wax euh, ay comme ni ñuy wax apnée nga xam ne da ngay dugg si ndox fat sa bakkan wala da ngay toog nii si air bi fat sa bakkan boo ko defee. quelques secondes da ngay sentir sa dënd ni mu tàngee ni ngay sonnee mu wóor la ne lii bu bu jëmee lu yàgg rek boo moytul dinañ am dinañ wut ay euh, ñu la taxaw donc euh, muy loo xam ne lii baaxul tey baaxul ëllëg et seen bi wane na ko que niñ ko defee baax na di wane nit ñi ne dañuy éviter yenn yi nga xam ne da ngay dégg si mbedd mi lii baax na si lii rek nga war ko def ci amoo si euh, taxawaayu spécialiste parce que boo xoolee Covid bi. man sama genre gi nga xam ne dañoo créer fii au Sénégal benn ak benn initiative bu ñuy wax fagaru ngir mucc. Mhm. Euh, depuis si Covid bi bu mu commencé ñun si lañ ko créer et donc ñu ko defee suñu mission lenn la woon c'était de sensibiliser les population si réseaux sociaux yi lañ ko doon jaarale. parce que amuñu woon moyen wu jaar si rajo ak télé yi donc euh, dañ doon defar ay vi ay visuel ak ay vidéo di ko partager si réseaux sociaux yi. suñu initiative boobu mooy initiative bu njëkk si initiative citoyenne Sénégal parce que dama nekk nit koo xam ne kii dama nekkoon un peu en avance peut-être yàlla moo ko def en fait bi may bi Covid bi di ñëw Sénégal bi kay bi ñuy dégg ne dans le monde ñu ngi am Covid man dafa fekk mu tombé ma jógee Thaïlande doon def benn formation si sama cursus euh, consultant humanitaire si wàllum euh, intervention humanitaire de manière globale pas si feebar rek mais de manière globale lépp lu jëm si affaire euh, ay inondation ay incendie ay affaire maladie yi ay affaire u mbënn ay maral xiif yooyu yëpp dañ ci doon jàng donc ñu def quinze jours en Thaïlande ñu bisi bi ma ñëwee nag ba may bind sama rapport période boobu lañ ñu avertir au niveau mondial dañu am benn plateforme si la ñuy avertir ne am na feebar bu génn ak euh, organisation mondiale de la santé donc may suivre affaire bi. Abdou dinañ dellu siwaat euh, ci ci point boobu parce que dafa mel ni ñu ngi may def signe que ne am na beneen auditeur bu nekk euh, ci nga xamante ne moo di ligne bi foofu ngay teg sa baaraam rek ma dellu siwaat ak yow. lu ci ay minutes yu tuuti asalaamaaleykum allo kon mu mel ni tey dégg-dégg bi taxu ko demee noonu mu nekk sûrement jafe-jafe réseau lu mën a nekk la euh, Abdou Touré ndax yaa ngi ci ligne bi ba léegi waaw maa ngi fi wax voilà kon ñu delluwaat rek parce que dafa mel ni auditeur bi rëcc nañu ñu ngi jéem a fexe ba xam naka la ñuy jokkoowaat ak moom mu mel ni yaa ngi doon dellu si ak ñun ci yenn ci ay activités yi nga xamante ne jot ngeen ko def ci initiative fagaru ngir mucc waaw effectivement comme euh, merci beaucoup ma dellu fi ma taxawoon c'était de dire que bi affaire bi amee ñun dañoo doon amoon taxaw seetlu taxaw seetlu bi mooy que ni dañu doon gis ne Sénégal ñu bëri waxuñu ci feebar bi et si laa commencé alerte sur les réseaux sociaux Twitter laa commencé après Facebook ak sama gars yi euh, nit ñi sama xarit yu bëri jàpp ci nit ñu bëri porté wu volontaire pour ñu sensibiliser population bi te bi ñu bay sensibiliser population bi nag ñu gis mu am porté ñun commencé woon nañ dajale ay matériel gis nañ ne état bi mu ngi doon am ay soutien ñun tamit ñu dajale matériel bu bari bari bari bari bari euh, parce que dañ nekkoon en contact ak euh, ay nit yu ministère de la santé ak euh, CUS nga xam ne ñoom ñooy centre bi nga xam ne ñoom ñooy géré affaire urgence yooyu et ñun dañ doon xool directement lan la CTE yi soxla parce que xam nañ si CTE yi fa la malade yi gënoon garaaw nekk xamoon nañ ne état bi benn instant ay moyen demee noonu donc doole biñ collecté woon suñu biir moom lañ nekk woon di def donc je me rappelle que ni suñu première visite c'était yi bésu Korité la woon bésu mm. Korité dañoo julli ba pare rek tasaaroo jël suñuy oto euh, dem si CTI yi rendre visite malade yi. jërëjëf Abdou principe bi nag moo demee nii faw ñu lay ñaan nga. dëgg la dëgg la dëgg la auditeurs <laughs> ak yow ci kanam tuuti rek allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa maa ngi lay nuyu sëriñ bi naka nga tudd ak fan ngay wootee. waaw maa ngi lay euh, maa ngi tudd Ousmane Niang. dëkk maa ngi lay nuyu. maa lay fay bu baax a baax. mu mel ni yaa ngi déglu diisoo ngir aaru. waaw ndax mën nañu xam rek ana fan nga bëgg a duggee ndax principe bu émission bi mooy bu fekkee ne woote nga da ngay daal di wax fi nga xam ne foofu moo la intéressé su ko defee acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ak ñun ci biir studio bi dal di joué waat ba fi nga xam ne foofu nga bëgg nga ne leen stop su ko defee ñu taxaw na nga daal di jokkoo directement ak ñoom ndax loolu mën naa nekk. waaw mën naa nekk ginnaaw bi ma dégloo nag am na parti boo xam ne moo a gën a intéressé. muy ban. ma bëggoon ci dugg mooy moodu bi nga xam ne moo jot information bi këram. ginnaaw bu mu ko wërulee ba pare mu dem di waxtaan ak xaritam waaye li ci gën a doy waar mooy moom euh, jot na xibaar weddi ko ba pare waaye weddi na ne corona amul. kon mën nañu dem ndax euh, bu ko defee nag comme principe bi rek da nga leen di wax ne stop su ko defee rek ñu daal di euh, waaye fii kenn mënu fee toog kenn mënu am jàmm ci kër gi ah sonal nañ ñu trop ak seen waxu coronavirus yi nii dañuy sonal trop quoi eh grand pape. waaye ku be. waaw naka mu. baa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm ba. oui foo jëm nii gaan. waaw bay man dama doxantu rek. oui mais sinon mi ngi cool. waaw mais nii. alhamdulilah. waa mais Gayane xam nga rek sama waa gaale Gayane sa maire moo fi ñëwati tey xam nga sonal ñu ak kii nii quoi. waaw mais ah? waaye naan naan ñu ay kii coronavirus boo boo ko bëggee xam ndax dal na la wala dalul la da ngay téye sa nooyi lu tolloog ci vingt quatre secondes après pour nga mën a xam ndax am nga Covid wala amoo Covid ñun ñooñu sonal ak seen Covid yii nii. waaw mais baay bi est que loolu wóor na. non man maire bi xaw ma mu ne maire kii moo ko wax ah mu ne maire kii moo ko wax xaw ma mooy xaritam boobu noonu. Ah, mais ñun xoolal coronavirus dañoo war a noppalu te xam ne amul dañu war a noppalu quoi. Ousmane ndax yaa ngi déglu. waaw maa ngi déglu Modou ana Modou moom. Modou mi ngi noonu waaw maa ngi nii Ousmane. waaw Modou yow moom. waaw. foo wér xibaar boobu ne coronavirus amul. non coronavirus amul. xam nga amul. non xam nga xam nga tubaab yi. dañoo teg seen politique. pour wàññi population africain bi léegi nag pour wàññi population africain bi il faut ñu tiital africain yi ni ñu tiitalee africain yi rek mooy xam nañ ne siburu feebar la boo xam ne day reye ñu mën cee jafandu tiital nit ñi ne leen benn xeetu feebar bu génn la bu bees xam nga bëgg a indi ay vaccin pour vacciner nit ñi rey leen wàññi leen quoi loolu moo am ci kii bi. mais coronavirus bi waaw loolu ñuy digle ñoom jiituwuñ si ndax tubaab yi ñoom amul ñu dee. non xam nga booy def sa mbir yaakaar na yow fi nga koy jëmale euh, far yàlla affaire bi dal seen kaw loolu la demee mais xam nga ni cible bi Afrique la woon. ndax tubaab bi am na ñu dee wala amul ñu dee. am mais dafa rëcc dal ci ñoom. ndax tubaab yi am na ñu vacciné wu am na ñu amul ñu vacciné. ñi vacciné wu yëpp dem nañu. kan moo la ko wax. fan fan nga dégg naa ko loolu laa dégg gars yi gars yi dañ koy ah, envoyé. loolu yow de yow daal da dégg rek euh, gëm daal. xam nga lan la sa waay affaire yi lépp loo bëgg a xam boo fa demee fekk ko fa. boo demee Facebook wala WhatsApp dama waaw. lépp lu jëm xeetoo ci xibaar ci wàllu wér-gu-yaram. waaw kër docteur wala docteur rek moo ko mën a wéral wala mu ñàkk koo wéral. xam nga xam nga kii bi feebar bii. waaw yow boo feebaree fooy dem yow. man damay dem kër docteur. lan moo tax ngay kër docteur. non pour faju moo tax ma fay dem. waaw ndax da leen gëm wala gëmoo leen. non loolu dañ ko fi teg donc par force dama fa war a dem. quoi yow danaa gëm ne docteur rek moo la mën a faj walla daal. non parfois man mën naa bañ a faju te damay wér. déet yow. heure boo feebaree wala sa waa kër feebar kër docteur nga leen di yóbbu. waaw léegi ñoom ñoom ñooy demal seen bopp kër docteur mais yow dama lay laaj. ndax da nga gëm feebar bi wala gëmoo ko yow. fi ngay nekk nii lu ndax man. jarul ma koy gëm wala may may ñàkk ba ñu gëm. parce que fan nga ko teg yow fan nga ko teg. dama ne. adduna bi yëpp mënuñoo mànkoo ne feebar bi am na yow cundum nga ne feebar bi amul teg ko ci seen ci sa ci sa nafs dong. jërëjëf jërëjëf euh, Ousmane mu mel ni donc euh, wax nga ak nga xamante ne mooy moo du nga xam ne moo tax nga bëggoon a dugg ci biir émission bi ndax yaakaar nga ne atteindre nga sa objectif. waaw parce que dañu ko il faut nit ñi ñu xamal leen euh, ne du seen teeyaayu bakkan rek la ñu war a deme gis nga loolu noonu mu wax ñu bëri ñu koy wax waaye ba ñu leen confronter ak la réalité dellu nañ ci ginnaaw ñi nga xam ne ñooy wax Covid amul bari na. waaye ñi nga xam ne dem nañ ba ñu wax leen réalité bi xam nañ ni Covid 19 am na te lu mën a lor la ñenn ñi sax bëgguñu woon ñàkku waaye après dañoo dem ñàkku ji te xam nañ ne loolu dong moo leen di aar. jërëjëf Ousmane ndax kon bokk nga ci ñu gëm na itam naj sa nooy yi ngir ba nga xam ne ndax am nga Covid wala déet euh, taxawul enewul maanaa. loolu kay wérul xibaar bépp bu jóge ci wàllu Covid 19 wala coronavirus. xam ne waa Kër Docteur ñoo ko mën a dëggal wala ñu weddi ko. jërëjëf Ousmane ñu lay jaajëfal bu euh, baax bu baax baax ci waa Kër Docteur. nekk na lu am solo ñu lay jaajëfal ti la jox dig daje beneen bés ci beneen ponk lépp jëm euh, ci Covid 19 ak ay vaccin am. kon dañuy delluwaat rek ak nga xamante ne moo di Abdou Touré nekk suñu euh, consultant nekk encore en ligne allo Abdoul. waaw sama kot. maa lay ziaraat. kon lay ziar rek doole ziar bu mu mel ni yaa ngi doon déglu kon suñu ñaareelu auditeur bi dugg. waaw waaw waaw. ana lan nga jàpp ci li nga xamante ne mooy li mu véhiculer comme message. waaw li muy véhiculer euh, mooy le fait que ñuy laam-laame euh, Covid am na wala amul su ma ko mënee résumé. parce que ñenn ñu bari ñu ngi naan bu leen ñu sonal am na amul ñi xam nga fu tubaab la noonu laa si dégg. et eh, te loolu li koy gën a véhiculer mooy les fake news wala fi nga xam ne nit ñi au lieu ñu fay wut information duñ ko fa wut information dañuy dem si mbedd bi di fa wut information dañuy xam ne nag dañu war a réew bi te am na ay bërëb yoo xam ne euh, ku bëgg information bu crédible dafa am foo koy jëlee donc euh, te loolu moo gën a indi yenn problème yi te mooy indi sax problème doon bi ñu doon waxtaan sànq ay affaire nooy yi lak defal nii ajal sa nooy yi donc information yi crédible dafa am foo koy wutee dafa am noo koy wutee et ku xam ne surtout ministère de la santé ku xam yenn télévision rajo yi comme yéen ñii tey euh, déglu émission yi daf ciy am solo ak yeneen ak yeneen yoo xam yenn page yoo nga xam ne sont officielles ñuy permettre ñuy am yenn information yi hmm. te mooy tuuti déglu waa mbedd mi covid euh, lu am la lu fi nekk la euh, ñu ngi koy regretter période delta bi jënd fi nit ñu bëree bari bëri bu njëkk bi aussi première vague bi gis nañ ci ay kilifa yu bëri yu fi jógee ay célébrité donc après ñu gis ne ñun suñu biir kër yeeg ñeneen ak ñeneen dal na leen donc euh, lu am la ñu mën a li ñu war a def rek comme ni ma koy waxee toujours fagaru ngir mucc. def très attention parce que jógee gu fi ba tey. Mhm. wàññeeku na mais jógee gu fi. Euh, dëgg mu nekk lu wër Abdoul ndax mën naa xam rek ci li nga xamante moom ngay def ci ay activité mu jëm ci sensibilisation ndax bokk na ci ngeen di ci wéyal li nga xamante ne moo di euh, fausse information ngeen di fexe ba ñi leen di déglu ndax ñu am solo la itam ñu di ko moytu bu baax a baax ndax gis nañ ne daal yooyu la fausse information lëmbee lool réseaux sociaux yi. waaw Codou euh, ñun bi initiative bi doo ko commencé jéemoon nañ commencé liggéey ak suñu yenn ba seen sunu booy yi am na ñu ñu créé woon benn groupe di collecter les fake news am nañ benn groupe WhatsApp boo xam ne c'était juste pour collecter des fake news et di ko jéem a euh, discuter suñu biir pour xool comment déconstruire euh, l'information mais xam nga information boo dul professionnel très compliqué nga déconstruire ay fake news mais après moo tax dañu mujjee ne loolu du suñu domaine ko boolee bàyyi ak domaine journaliste professionnels yi te ñun ñu consacré wu pour fu nit ñi di waxee fake news ñun ñu indi ay euh, information véridique te je pense que euh, suñu sérieux si wàll boobu mooy que ni euh, moom li ñu sanctionné positivement mooy que ne dañoo dem ba gis ne muy les gens du ministère de la santé yenn kilifa yi wala waa CUS dañu mujjee def ay partenaires ay waay di liggéey ak ñun parce que gisoon nañ ñun sur nos plateformes ak dara dañuy consulter ay professionnels ñu xool ko xoolaat ko xool ndax information bi ñuy génnee baax na di génnee information yu crédible yoo xam ne ko gis visuel wala vidéo di nga xam ne voilà ñii caaxaanuñu quoi si yoon lañ nekk. mu nekk lu am solo du Touré di fàttali rek nekk yéen a ngi suivre seen émission di diisoo ngir aaru te Africa Check ànd ci ak Théâtre for a lépp ci jàppandalu Google News Initiative muy am altine bu nekk fii ci rajo Oxygène la 103.4 ñu wax ne képp koo xam ne bëgg nga participer ci émission bi benn numéro WhatsApp rek la muy 77 424 94 73 mu nekk nag numéro boo xam ne da nga ciy envoyé message rek su ko defee ndaw Africa ca ki mun laa woo mu mel ni am na ku def li ni mel envoyé message ñu woo ko asalaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay nuyu sëñ bi na naka nga tudd ak fan ngay wootee. yaa ngi wootee. Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall maa ngi lay nuyu bu baax. yàlla na yàlla nangu ziar mu mel ni yaa ngi suivre émission bi di diisoo ngir aaru épisode di ana fan nga bëgg duggee ngir mën a wax ak ñi nga xamante ne ñoo ñi ñu ko joué boobu la épisode waaw maa ngi maa ngi déglu fi fi fi grand bi di ko ba xam ba xam gëm nga bi walla ah mu mel nii foofu mooy fi nga xamante ne donc auditeur buy duggoon la wante kon mhm. en tout cas mën nañ la jouer waatal ba nga xam ne bu ñu yegsee fi nga xam ne moo la intéressé rek da nga naan stop ndax loolu mooy principe bi boo waxee stop rek bu ko defee nag nga daal di euh, wax li nga xam ne foofu nga bëgg a duggee su ko defee rek mun a jokkoo ak ñi nga xamante ne moo di euh, Modou wala euh, Baye Ndiaye wala sax mère Fanta ndax mën naa nekk est-ce que déglu nga émission bi sax balaa ñuy dem ci kanam. non c'est bi noonu. kon dañ la ciy tegalaatal nag nga déglu tuuti balaa ñoom ñuy jouer su ko defee rek euh, boo waxee ne stop rek ñoom ñi ngi nii toog mën nañu jouer moom euh, Pape daal di wax ak nga xamante ne euh, moo di Modou su ko defee nag nga mën a wax stop rek jokkoo ak kenn ci ñoom ndax mën naa nekk. waaw d'accord. bul fàtte wax stop nag d'accord. waaw. acca ñu dem. waaye kenn mënul noppalu ci kër gi ah sonal nañu witt ak seen waxu coronavirus yi nii ah kenn mënul am jàmm fii nii. waa booy lan moo xew. yee Pape naka mu. waaw mais nice. waa gaale maire moo fi ñëwati tey rek indi xibaaram gaan ñëw daan ne xam nga benn xaritam moo ko wax ne ko bu fekkee da nga bëgg a xam ndax am nga Covid wala amoo Covid da ngay téye sa noyyi lu tolloog. vingt quatre secondes comme ça bu fekkee ne sëqatoo rek après amoo Covid bu fekkee sëqat nga danga nga am Covid booy xam nga lan la man coronavirus si boppam moom laa lay wax ne amul nit ñi ñoo bëgg a soral leen fii nii nekk di leen gëmloo yoo xamante ne amul. waaye coronavirus dafa am. mais fa nga ko teg. waaye amul dafa amul. stop. voilà kon wax nga stop kon ñu ngi nii ana kan nga bëgg a waxal Modou wala. allo waaw Modou. waaw. yow foo foo foo mën a teg ne corona gi amul. non coronavirus amul. Ah, loolu lan lay wax dañ naa la boo coronawee lan moo lay lan lan ngay jëkk a sentir. da ngay sentir liw. waaw da ngay sentir ay liw. waaw sa yaram di metti. santiir ah? sentir sa baat bi sa dara du maanaam sa làmmiñ bi dootul safati. waa léegi yow boo sibiru lan ngay sentir. comme genre jeex na sibiru la rek gars yi ñoo fi bëgg a nekk ni di teg xel de. mais sibiru kese mais yow li ànd li ànd la d'accord la ànd la moo d'accord ni dafa am yow dong nga bëgg nangu ne amul. non xoolal sa li ma lay wax nii nii loolu xoolal boo waree boo waree ay TikTok wala Facebook. wala ah. Instagram di nga fa gis xoolal xibaar yu wér. kenn xoolal ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a am alal ci àdduna bi. ñoom ñoo dajaloo. def seen benn kuréel def créer benn feebar. pour wàññi population africaine bi. bañ bañ ne da ngay gis gisul nga mën a xam li leer. non loolu lu wér la ay xibaar yu wér la. waaw li ma lay wax nii. non lu mhm. wér la. affaire nag dafa rëcc dal seen kaw xam nga leen naan. yéen a néeg la borom a cay fanaan loolu moo leen dal. allo Abdou Aziz mu mel ni ñu lay jaajëfal bu baax mu mel ni. yaa ngi ree ndax li nga mm-hmm. bëggoon def ak nga xamante ni ne Modou Modou ndax euh, lan moo tax nga bëggoon wax ak Modou directement. man sama damaa d'accord lu tax moom moom dong mu bañ a nangu ne corona ji am am na wala. am lan moo tax d'accord loo ci. parce que li ñëpp ñëpp wax la. lan la ñëpp wax ñu ñu ñu ñu di élève sax mu ñëwee ba ñu ñuy imposer sol ay masque ay laal ay gel. prof yi naan la ay ñu sax ñu ñu bokkaloon ay service am nañu si am ñu ñu ñuy d'accord ko ñu mënul tax mu bañ kaa d'accord moom. kon daal jàpp nga ne buñ jëlee yenn ci ay matukaay dafay firnde ne euh, kon feebar bi lu am la. waaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax yoo Abdou Aziz la jox kon dig daje mu mel nii sa woote am na solo. na ku nekk def ni moom rek daal di woote euh, ci envoyé message ci numéro bii di 77 424 94 73 ngir mën a envoyé message su ko defee ndaw Africa ca kii mën laa woo nga daal di participer en direct ci ñi nga xamante ne moo di comédiens yi nekk ak ñun ci studio bi nga xam ne rek ñoo ñu joué euh, épisode 17 bu diisoo ngir euh, aaru Abdoul Touré ndax yaa ngi ci ligne bi ba léegi. waaw maa ngi fi mel ni yaa ngi suivre boobu ba léegi intervention auditeurs yi ku nekk am nu muy génne waaye daal ñu daal di mànkoo ñoom ñëpp gis ne li nga xamante moom la message bu Modou di wëyal nekkul euh, xibaar bu wër tey ñuy xiir ñëpp en tout cas ñuy fexe bay am xibaar yu wër te wóor jëm ci mbas mi ak vaccin yi. waaw effectivement effectivement lu am solo la parce que nit ñi ñu ngi dugg sànq ba tey euh, point boobu intéressé na leen gis naa ne ñu bëri bu ñu duggee loolu la ñuy wax et effectivement ils ont raison ils ont raison de rappeler Modou à parce que euh, ñu ngi ko naan euh, lu am la feebar lu am la di insister te lu am solo la je pense que au-delà de même si rajo bi je pense que ni ko nit ñi di réagir fii noonu lañu ko war a réagir aussi chez eux Euh, dans la rue dans les voitures euh, dans les transports pour euh, dire aux gens que Covid lu am la nañ kon ne di moytu nañ kon di moytu parce que jusqu'à présent on voit que nit ñaa ngi kon di sol seen i am na ñu koy di def am na ñoo mhm. xam ne ñu ngi kon di mais pour man dañoo war a continuer dañu war a continuer sensibilisation bi même même sensibilisation bi sur euh, les mesures barrières lu ñu war a continuer la parce que on sait jamais on sait jamais on est vaccin baa ngi fii yu bëree ngi fii ñu ngi si wax mais nit ñi daal bàyyi nañ garde wàcce nañ seen garde et du du li gën daal du li gën pour euh, euh, la santé publique donc en tout cas mu nekk lu ñooñu woote ñoom ñu leen gërëm hmm. personnellement di di leen gërëm di leen sant si parce que ils ont compris ils ont compris l'essentiel c'est de continuer de rappeler que la maladie est là ça existe mu nekk lu am solo donc yow Abdoul ture mu mel ni foofu nga taxawee sax fa laay tàmbaleewaat ndax euh, idéal bi mooy donc déconstruire les fausses informations ba tax ñuy invité bépp auditeur boo xam ne yaa ngi suivre émission bi bay woote di invité itam ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi si kër yi daal di wéyal message ne leen kat nañu moytu fausse information yi nga xamante ne moom la ñu faral di déglu mu mel ni Abdoul di nga taxawaat de mel na ne am na keneen ku duggaat euh, ci ligne bi asalaamaaleykum. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay naka nga tudd ak fan ngay wootee. man la Oulimata Diouf. Oulimata Diouf fan ngay wootee. waaw maa ngi wootee dëkk Medina. Medina. waaw kon mu mel ni yaa ngi déglu diisoo ngir aaru. waaw. kon li ma bëggoon rek mooy nga wax ma at na fan nga bëgg duggee ci biir euh, émission bi daal di waxtaan ak suñu comédien yu ñaawul yi nga xam ne moom la ñu nekkal en direct. ci rajo bi ban parti mhm. moo la intéressé. maa ngi leen doon déglu mais dégg bi moo neexul ndax réseau bi. réseau bee baaxul d' accord. waaw réseau bee baaxul déggoon naa ci Maymuna. kon dañuy ak euh, kële. dañuy tàmbali dañuy allo allo dañuy tàmbali ak yow rek comme naa ne jigéen ñi nga bëgg a jokkool kon bu nga xamante ne bu ñu commencé rek fi la bu ñu fa yeggee danga naan leen stop su ko defee nag nga mën a wax ak ñoom ndax mën naa nekk mu mel ni seen seen deux bi la kon ñu ngi dem nga déglu bu ñu fa yeggee rek danga naan stop d' accord d'accord incha allah. bisimilah. soxna Awa Cissé sama ngàcce tay mii ne xaw fan laa koy waxee ku ne xam na ne keroog yaay fàttali ko weer fànta nàkk mu ñaaw lañ ko nàkk ci tuur mi ndax nee nañ dañ ko ñaay dafa corona bañ ko ma woo ko nag ne ko comme demee na noonu xam nañ ne maa ñaay corona wul ci tuur mi doo ma laaj lan la ma tontu. lan la wax. non amul benn problème dinaa ñëw ci tuur bi dama sonn sonn sonn sonn sonn may ma nga ne gis nga yow euh, soxna Mariam danga war a bàyyi gaawtu lii yëpp nag waxoon naa la ko eh. salaamaaleykum maaleykum salaam ay sama xarit namm naa leen ñoo la naw ma ah, naa leen bu baax waaye ci loolu ne andi loxo bi waaye soxna Fanta jox ma loxo bi stop acca kon ñi ngi noonu ana nga bëgg a waxal ci ñoom waa maa ngi bëgg a wax ak soxna May Muna. soxna May soxna May Muna waaw. waaw kon mi ngi noonu. waaw allo. Oulimata Diouf waaw Oulimata. waaw man la Oulimata Diouf depuis Medina. waaw Oulimata naa ne. maa ngi fi May Muna. maa yaa ngi ci nga ne. Oh, waaw maa ngi ci baax di leen déglu rek di kontaan ci émission bi. yow nga ne kontaan loo bëggoon wax ci émission bi. waaw waaw mais comme corona bi laa bëggoon participer rek comme li nga wax. waaw waaw wàllum joxe loxo bi moom xam nañ ne moom jaaduwu ci. ah waaye ñoom tamit ñun suñu xarit ma. waaw waaw léegi dañu woon ci ñoon. waaw ñu gàññi ne dafa am corona. nàkk ko ci tuur mi. léegi nag amaat na meneen information mu ñëwaat ci miin tuur mi. léegi nag comme keroog joxe woon nañ ci ci affaire corona. mu ñu indilaatee mhm. information balaa ñu koy gëm dañ kaa war a mhm. gëstu ba pare. information bi nag. Euh, waaw loolu dëgg la waaye information bi moom dafa jàlloon ba pare ndax information joxe loxo beeg. ñu respecté mesure barrière yi ci la bokkoon xam nga te jàlloon na fi ba pare. xam naa mhm. nag ci tour bi it bu fekkee ñëw na te am corona ñu dàq ko it. dina xaw a métti mais mooy li jaadu daal parce que dañ ne aaru comme dañoo war a aaru nag dañuy aaru rek comme dafa corona il faut tamit. xanaa ñu xool niñ ko koy waxee mais nag warul mën a ñëw. jërëjëf Oly Mata ñu lay jaajëfal bu baax a baax. mu mel ni kon li nga bëggoon def nga ko mooy jokkoo directement ak soxna Marème ci biir émission bi ñu lay jaajëfal bu baax. waaw kay jërë ngeen jëf. kon ñu delluwaat ci nga xamante ne moo di suñu invité nekk Abdoul Touré allo Abdoul. waaw Sanokot. waaw ma fàttaliwaat rek ne euh, rappel li nga xamante ne moo di question de la semaine bi mooy ana naka la ñuy fexe ba waxtaan ak ñi nga xamante ne jàpp nañu ne ak seen nooy yi euh, mën naa tax ñu xam ndax am nañu li nga xamante ne moo di euh, Covid bi wala déet kon Abdoul ture mu mel ni kon mbir mi mu ngi woy ba léegi yaa ngi koy wax sànq feebar bi ba tey mi ngi fii faw ñu delluwaat ci mesure barrière yi ndax fii ñu toll temb temb fagaru ngir mucc mi ngi wéyal yeneen ay activité ngir rek ngir jëm ci gën a sensibiliser euh, askan wi euh, fu mu nekk nii nag euh, fagaru ngir mucc dañu xaw a pause parce que comme gars yi dañu nekkoon ci campagne vaccination yi que CTE yi aussi pratiquement yi doon liggéeyandool ñu bari tëj nañu li fi des yi fonctionné bareetul donc benn instant dañu parce que en fait à chaque fois bu ñu defee ay campagne de de communication dañuy évaluer mhm. mais euh, comme li ngeen di def nii on s'est rendu compte que ni ñu bari bari bari bari comprendre nañ maintenant Covid bi li des dans si nit ñi li ñu lu ñu war a def mooy peut-être accepter de dem vacciner wu wala ñàkk accepter dem vacciner wu et boobu mooy combat bi gën a compliqué parce que ñi gëmul ne am na ñu ngi fii euh, ñi ñi gëm nañ ne Covid bi mu ngi fi mais bëgguñu vacciner wu donc ñàkk bëgg vaccin boobu si lañ doon def temps yi ay campagne de communication mais liggéey bu taar la liggéey bu tar la parce que même euh, boo xoolee euh, am na fii Sénégal temps il est informé nañ ne il y a beaucoup de vaccins yu fi des yoo xam ne dafay dafa nar a yàqu parce que nit ñi utiliser wuñu ko donc je mm-hmm. pense que aussi orienter le, le débat et la communication sur ces aspects dina si baax parce que euh, gis nañ fi ñoo xam ne Covid dañ ñaari yoon ñetti yoon te ba tey nanguwuñu vacciné wu ko kon ñu jàpp ne fagaru ngir mucc liggéeyam taxawul dina gël di wayaat waxtaan ak askan wi ngir gën leen mën a sensibiliser ba nga xamante ne yooyu le vaccin des ngir mu bañ a yàqu ñu daal di dem ci bërëbu fajukaay yi daal di ko jóg ndax lu tam ngir gën a wóyal boobu la liggéey ñi ngi ñaan yow mi nga xamante ne yaa ngi nekk ci fagaru ngir mucc nga daal di jege bu baax ñi nga xamante ne ñoo di waa Africa Check ndax gëm naa ne am na lenn loo xam ne mën nañ ko indi jàppale ci liggéey bi wi ba taxaw boobu ngeen taxaw sax mu deñ nag ngeen jóg dugg ci askan wi gën a wax liggéeyaat ak ñoom tax yaakaar naa ne c'est le moment ndax mën naa nekk. waaw waaw lu mën a lu mën a nekk la lu mën a nekk la pour man euh, Africa Check man sax man c'est une surprise xaw ma woon ne def ay émission rajo pour man euh, liggéey bi ñuy def liggéey bu am solo la ñu ngi déconstruire question ñàkk information yeeg yooyu wala information yi baax ak yi baaxul loolu xamoon naa ko mais tey ni ñu ko defee nii si rajo yi pour man c'est très important et dama leen di ñaanal ñu am opportunité aussi di ko def si si si télé yi aussi parce que nit ñi ñuy gëm si si fake news bari xam ne kii te fake news ça crée beaucoup de kontaan naa trop tamit xam ne euh, Africa Check ñu ngi liggéey si wàllum Covid bi aussi quelque chose de très important loo xam ne ñu bari xamuñu ko et liggéey bu rafet la. liggéey bu rafet lay jaajëfal bëgg tam liggéey bu rafet boobu daal di wéy xam naa bu jokkaloo bi amee ba ngeen mën a liggéey euh, li nga xamante ne moo di fagaru ngir mucc ànd ak Africa Check yaakaar nañ ne li ñu bëgg ci ay objectif dinañu ko atteindre kon euh, Abdoul Touré sa mot bu mujj lan lay doon ndax li ñu dese ci ay minutes bëreetul. waaw Codou xanaa di rafetlu jeetaay bi euh, neex moo tax mu gàtt auditeurs yi fi jaar yëpp ñëpp euh, ils ont ils ont été pertinents ci seen intervention artistes yi maa ngi leen di gërëm di leen sant seen liggéey tamit rafet la ñoom tamit ñu ñu war a taxaw la gën a vulgariser li ñuy def yow ak sa équipe ma leen di jaajëfal liggéey bi rafet na coordination bi rafet na euh, di gërëm Africa Check ci invitation bi ñu ma invité et di leen xam naa du yàgg peut-être dañ gën jokkoo pour gën yaatal liggéey bi si wàllum euh, sensibilisation si Covid bi wala yeneen thématique yoo xam ne si ngeen si ngeen di liggéey bu neexee yàlla jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow Abdou Touré nekkoon suñu expert du jour ñuy jaajëfal itam képp koo xamante ne yaa ngi ñu doon may nopp di suivre émission bi ak ñun rawatina euh, auditeurs yi nga xamante ne jot nañu oote ku ci mel ni Massey ku ci mel ni euh, Ousmane Niang te Dalifor nekk ci Médina ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal li nga xamante itam moo di technicien réalisateur bi di Fallou Sow présentation ngeen amoon ci Koddu Lum euh, ñu jox leen rek xanaa gannaaw ba ñu jaajëfalee coordonnateur émission bi di Samba Dialli Babatsi euh, comédien yi nga xamante ne ñu ngi nii nekk en direct ak ñun ku nekk ci moom mu daal di présenté wu wax ban rôle la joué ci bile émission. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye maa nekkoon Modou ci pièce bi di leen nuyu bu baax a baax. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Khady Fall Diaw ci pièce bi maa ci nekk mère Fanta di leen jaajëfal bu baax waaye. salaamaaleykum maa ngi tudd Mame Mbodj Gueye mm, bi maa ngi ci tudd Baye Ndiaye. salaamaaleykum maa ngi tudd Yacine Diop ci pièce bi maa ngi ciy joué Binta ak euh, Awa Cissé. salaamaaleykum maa ngi tudd Mamadou jool ci pièce bi maa si nekk Cheikh. salaamaaleykum maa ngi tudd Seynabou Diop pièce bi maa ci nekk Marème ak euh, Soxna. kon la présentation ko du lum ngeen ci amoon ci partie technique bi euh, DJ Lass ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jéggalu itam ñi nga xamante ne bëggoon nañu dugg te mënuñoo dugg ñu leen jox dig daje euh, altine bi di ñëw ci épisode 18 bi ñu leen di jaajëfee am ngeen possibilité répondre ci question de la semaine bi à travers les réseaux ngir ñu mën a daal di wëyal donc waxtaan bi kon jërë ngeen jëf diisoo ngir aaru épisode set fii lay tëjee ay buntam kon jërë ngeen jëf.